الحمد لله الحمد لله وحده وسلام على من لا نبي بعده بكي جل جف بكي نين لين لين بو باخ باخ تاي سي التيني جي رمضان 1440 تولو فك فان اك نيت سي 2019 ني لين حديث بي سي تك جي امام شيخ احمد التيجاني ابن سيدي علي سي سي سي ولف تي عبد الله شيخ محمد الماهي شيخ ابراهيم نيا سيرن جاي مو باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا وقال عطاء إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك وقال الحسن إن دخل حلقه ذباب فلا شيء عليه وقال الحسن ومجاهد إن جامع ناسيا فلا شيء عليه حدثنا عبدان وأخبرنا يزيد بن زريع حدثنا هشام حدثنا ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نسل يا نسيا فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه بنتي نيت كو اور سي فكي دا فا ليك ولا مو نان فاتيني دا فا اور عطا مو ني سي فكي ني دا فا فيرو مانا دوال نوخ مي سي اي باخي بكنم نوخ مي جال دم با سي بروخام mu ne dara nekku ci su fekkee ne mënu koo téye amma su fekkee mën na koo téye ba génne ko su boobaa war na ko génne xasan mu ne su fekkee ne weñ itam dafa dugg ci sa gémmiñ ba jàll itam ci sa purax mu ne loolu tam dara nekku ci mën te yàq koor xasan ak mujaahid ba tey ñoo wax ne su fekkee ne ki or dafa fàtte ba sëy jabaram mu ne loolu itam dara nekku ci su fekkee fàtte ko ci dugal جلنا أبو هريرة رضي الله عنه مجلي شيء ينتبه صلى الله عليه وسلم ينتبه هنا كي أور سفاتة لك ولا منان من أنا متلي كرم نحيا الله كو ليال ما كنا ندلتم لو ليأكل كرم صلى الله عليه وسلم باب السواك الرطب واليابس للصائم واذكر عن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يساق وهو صائم ما لا أحصي ولا أعد وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخص الصائم من غيره وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة, مطهرة للفم ومرضاة للرب وقال عطاء وقتادة يبتلع ريقه بنتي سوتش بطاي ولا بوو شي نيتكو اور عامر ابن ربيعه تدونا نه جسنا يونان تبي صلى الله عليه وسلم مي سوتشو فك دا اور mu ne ci loo xam ne mënu ko lim mënu ko compte maanaam ay yoon yoon yu bari la abu hurayra itam radiallahu anhu jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi wax Suma su ma bañutoon a mbir mi ci suma xeet tatal ko ci ñoom kon danaa leen digal ne waxtu wuñ jàppee rek nañ socc jëlee nañ ci jaabir ak zeyd ibnu xaalid mu jëlee ci yonent ñu jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xadis jooju te mu ne yonent bi jagleelu ko ku oor ak ku oorut maanaam li mu wax ne bu ko bañutoon a diisal ci xeetam dana leen digal waxtu bu ñu jàppee ñu socc mu ne loolu yonent bi jagleelu ko nit ku oor ci ku oorut maanaam ki oor bu jàppee mën naa def loolu ki oor itam su jàppee mën naa def loolu mu ne Aïchatu wax na ne solo na jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi wax ne soccu dafay laabal gémmiñ تدفعي غرم غرم لو برمبي يلا جلاله حتى أقتادة تو وحنا نه مم سفك يا دفع ون لوري غنا بوم دارنا كوشي من نكون حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر قال حدثني زهري عن عطاء بن بن يزيد عن حمران رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوءه هذا ثم قال من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه سرنا جليجي يزيد وجليجي حمران من يجسنا سيدنا عثمان رضي الله عنه مجاب من يبمي جاب نك li mu njëkk a def mooy sotti ndox mi ci ay loxoom raxas ay loxoom ñetti yoon gàllax ndiku yoon daldi firu mooy dugal ci sa bakkan génnaat daldi raxas xarxana moom ñetti yoon raxas loxo ndeyjooram ba ci conci li yoon raxas itam loxo càmmooyam ba ci conci yoon daldi masa boppam daal di raxas tànki ndeyjooram ñetti yoon raxas tànki moy bi itam ñetti yoon ba pare wax ne moom Seydina Ousmane ne gis naa yonantu bi sallallahu alayhi wa mu jàpp jàpp lu mel ni jàpp lii ma jàpp man ba pare wax ne képp koo xam ne jàpp nga jàpp lu mel ni suma jàpp lii daal di julli ñaari ràkka yo xamne sa bakan waxtane wul la ci mbiri adina dara ci ñaan rakka ya mu ne yalla dañ la bal باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء ولم يميز بين الصائم وغيره وقال الحسن لا بأس, لا بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل وقال عطاء إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد لا يضيره إن لم يزدرد ريقه وماذا بقي في فيه ولا يمضغ العلك فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس لم يملك dina yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam ne kenn ci yenn su jàppee na dugal ndox mi ci ay bakanam génneet mu ne te xàmmewut ci ku oor ak ku orut maanaam fasalewut ci ku oor ak ku orut ku oor mën na def ku oorut mën na koo def xasan mu ne saud dara nekku ci mooy li ñuy ubbee bakkan soo xamee ne sa bakkan yi fàtt pompe yi nga xam ne ci li xew da nga koy pomp ci bakkan yi mu ubbi bakkan yi mu ne ko or mën na koo def dara nekku ci su fekkee ne fexe na ba lim pomp noonu du dem ci poroxam mu ne tus nga itam dara nekku ci ataa itam wax na ne su fekkee ne dafa gallaxndiku daal di dindi li nekk ci gémmiñam ci ndox dara nekku ci du ko lor su fekkee ne wannut ndox ma ba mu ko ba mu ko landi pare mu ne nag su fekkee daf koo sotti bu génn la des ci gémmiñam loolu dara nekku ci mu ne daakaande bi ñuy màcc itam su fekkee ne boo ko màccee doo mën a doo wan jeexiti daakaande bi ci sa gémmiñ lor ya su boobaa itam dara nekku ci waaye loolu jafe na ñàkk koo màcc daal moo mu ne su fekkee ne wan na ko maanaam màcc na daakaa ne wan naalee lor ya mu ne waxu mu ne kooram yàqu na waaye nag tere nañ ko luy sib la kon nag moytu ko moo gën mu ne su fekkee ne itam dafa dugal ndox mi ci ay bakkanam ndox mi jàll dem ba ci pour xam mu ne su fekkee ne mënta téye ndox mi mu ne tam dara nekku ci wallahu wa sallam باب إذا جامع في رمضان ويذكر عن أبي هريرة رفعه من أفطر يوما من رمضان من غير علة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه وبه قال ابن مسعود وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد يقضي يوما مكانه حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد بن هارون حدثنا يحيى هو بن سعيد أن عبد الرحمن بن القاسم أخبره عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام بن خويلد عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه احترق قال ما لك قال أصبت أهلي في رمضان فأوشي النبي صلى الله عليه وسلم بمقتل يدعى العرقه فقال أين المحترق قال أنا قال تصدق بهذا بنتي نتكو سير جبرم تبيركور سولن نن ولا تدن نن جلي أبو هريرة أبو هريرة يكتك وحديث جدف كو يكتك جميع جنان صلى الله عليه وسلم يرن تبي وحنه képp ku dog bis ci weeru koor ci lu duut benn ngant lu duut benn feebar mu ne boo doon or jamono lépp bis boobu mënoo koo fay soo oroon jamono lépp mënoo fay bis boobu ibnu Mas'ud ak Saïd ibnu Musayyib ak Shaabi ak ibnu Jubayr ak Ibrahim ak Qatada ak Hamad ñoom ne nañ kooku na fay benn bis rek wutale ko bis boobu mu dog ba tey solo nañ jëlee ci abdurahman ibnul qasim mu ne solo nañ ko jëlee ci muhammad ibnu jaafar ibnu zubair ibnul awaam ibnu xoylit ba tey ñu jëlee ci ibnu zubair moomu mu ne solo nañ ko ne aïchatu dégg na mu dégg na aïchatu aïchatu di wax ne toog na fi yonent bi góor ñëwal yonent bi sallallahu alayhi ne ko man day lakk naa yonent bi ne ko lu la jot mu ne ko dama séy suma jabar ci weer koor mu ne foofu ñu indil yonent bi li ñuy wax àndaar maanaam nattukaay yi mu ne yonent bi ne ana ki lakk mu ne maa ngi nii mu ne ko jëlal àndaar jooju nga saraxe loolu ci nekk du da nag loolu ku nekk la ku nekk ko mën a def ba pare def loolu neex dem uti àndaa rek saraxe kooku yonent bi moo ko jagleel loolu mu def ko waaye su fekkee ne yow da dem def lu la neex ba pare dégg nga bi ko jiitu boo ko doon fay jamono lépp bis boobu dootoo ko mën a fay kon nag moytu ko moo باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال ما لك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد إطعام ستين مسكينا قال لا قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل قال أين السائل فقال أنا قال خذ هذا فتصدق به فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله والله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك মানে বোনটি or cewek rokor tak دارا menanyu joxeel ko sarax ba pare mu war a kaafara and na kaafara mu ne solo nañ jëlee ci abu hurayra radiallahu anhu mu ne mas nañoo toog fi yonent bi sallallahu alayhi wa rek ak góor ñëw daal dina yonent bi man alaku naa yonent bi na ko lu la mono ko dama tabbi ci suma jabar te fekk or ngi or maanaa dama seeg suma jabar te fekk maa ngi or yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ndax am nga jambo boo goreel ngir yàlla mu ne ko déedéet yonent bi ne ndax man ngaa or ñaari weer yu tegaloo mu ne déedéet yonent bi ne ko ndax man ngaa leel juróom benn fukki miskin mu ne déedéet yonent bi sax fi mu sax ñu toog mu ne nit dugg ci yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam indil yonantu bi addiya xanaa àndaar yoo xam ne nga fees ak tàndarma àndaar mooy nattukaay yi ñu nattee ci magasin ak pukus yi ne yonantu bi ne ana doon laaj léegi waa ji ne maa ngi nii mu ne ko jëlal loolu nga dem saraxe ko waa ji ne ndax danaa ko sarax ñooñ néeg bu gën a ñàkk sama ñooñ néeg bi yow yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam ne ko gëñ naa ci yàlla ne diggante ñaari doj yii amut ci amul benn néeg bu fi nekk bu na ñàkk suma néeg suma waa suma amul benn kër bu fi nekk bu na ñàkk suma kër yonent bi daal di ree sallallahu alayhi wa sallam ba sellam yi feeñ yonent bi ne ko kon nag leeral ko sa kër sallallahu alayhi wa sallam loolu yëpp ci mbaax yonent bi la de ba tey bu mu tax kenn dugg ci loolu fokk ne man nga def lo ne ba pare jënd jox sa wakka dedet babul babul mujami'i fi ramadan hal yut'imu ahlihi min حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن منصور عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الاخره وقع على امرأته في رمضان فقال أتجد ما تحرر رقبة قال لا قال وتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال أفتجد ما تطعم به ستين مسكينا قال لا قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو الزبيل قال أطعم هذا عنك قال على أحوج منا ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا قال فأطعمه أهلك من نيركو سي أجبرم شويركور من النخ لم يكافر من نشي جوخ وكرم سفكي جنكو صحلو من عليه وسلم حميد بن عبد الرحمن وجلت أبو هريرة رضي الله عنه mu ne góor dikkal na yonentu bi sallallahu alayhi sallam ne ko kii ma àndat dafa tàbbi ci jabaram ci bëccëgi weeru koor yonentu bi ne ko ndax dana am lu muy goreelee jaam mu ne déedéet mu ne ko ndax dana da nga mën a mu ndax dana mën a or da nga mën a or ñaari weer yu tegaloo mu ne déedéet ndax da mën a leel juróom-benn fukki miskin mu ne déedéet mu ne foofu ñu indi yonent bi àndaar joo xam ne mu ngi fees ak tàndarma mooy nattukaay yi mu ne yonent bi ne ko jëlal loolu nga leele ko ci li la dal mu ne ko ndax dinaa ko leel néeg boo xam ne ñoo gën a ñàkk suma néeg bi suma waa kër képp kuy ñàkk ñoo la gën a ñàkk kon mënuma koo leyal beneen kër bàyyi leen mu ne yonent bi ne ko kon nag leyal ko sa waa kër loolu yëpp ba tey ci mbaax yonent bi rek la waaye tey kum dal daal liñ lay laaj mooy nga or ñaari weer yu tegaloo wala nga goreel jaam wala nga layal juróom benn fukki miskin loolu mooy li nga xam ne mooy li taxaw باب الحجامة والقيء للصائم وقال لي يحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان سمع أبا هريرة رضي الله عنه إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر والأول أصح وقال ابن عباس وعكرمة الصوم مما دخل وليس مما خرج وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم ثم تركه فكان يحتجم بالليل واحتجم أبو موسى ليلا ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة أنهم احتجموا صياما وقال بكير عن أم علقمة كنا نحتجم عند عائشة فلا ننهى ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا أفطر الحاجم والمحجوم وقال لي عياش حدثنا عبد الأعلى حدثنا يونس عن الحسن مثله قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ثم قال الله أعلم بنتي nit ku or gàjji walla muy woccu ci fekk dafa or solo nañ jëlee ci muawiyat ibnu salaam mu ne yaxya nettal na leen jëlee ci amar ibnu xakam ibnu sawbaan mu ne déggee na ci abu hurayra radiallahu anhu yenentu abu hurayra wax ne su fekkee da ngaa oor wëccu dal la nga wëccu mu ne loolu mënta dog koor ndax mu ne loolu dafa génne waaye dugalut wëccu dafa génne waaye dugalut te lu dugal mooy toj koor mu yàq mu ne ba tey tudd nañ jëlee ci Abu Hurayra mu ne dafay dog mu ne waaye wax ju njëkk ji moo gën a wér maanaam li mu wax ne kooram yàquwut jëlee nañ ci Ibnu Abbas Ibnu Abbas wax ne moo Ikrima ne koor lu ñuy dugal lañ la tere waaye terewuñ la looy génne mu ne ba tey ibnu umar radiallahu taala anhuma daan na oor di nampatalu mooy li ñuy wax gàjj fekk dafa oor mu ne gannaaw gi mu bàyyi ko di nàmpatalu guddi bañ a ba bëccëg bi mu ooree abu muusa al ashari mu ne nàmpatalu na ca guddi mu ne solo nañu itam jëlee ci saad ak zeyd ibnu arqam ak ummu salama ñoom ñépp ñu ne nàmpatalu nañ fekk ñu ngi or bukayr wax na ne jëlee na ci ummu alqama mu ne daan nañ nàmpatalu ci wetu sayyidatuna aïcha radiallahu anha te kenn du leen tere maanaam su fekkoon ne daraa ngi ci rek Aysatu dana leen wax ne yenentu bi tere na ko tey nañ ko def ci kanamam te wax dara mu ne ba tey solo nañ jëlee ci Xasan jëlee ci kudut benn nit xadis yu ñu yëkkati mu jëm ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ki nam ki nampatal dog na ki nampatal dog na wax ne abdul ala nettil na leen ne yunus a nettil na jëlee ci xasan lu mel noonu lu mel ni wax joju mu ne ñu laaj ko ne ko ndax loolu ci yonentu bi la jóge mu ne waaw ci yonentu bi la jóge gannaaw gi mu ne waaye yàlla daal moo xam kon nag li gën a wér daal mooy wax ju njëkk ji koor luy dugal moo ko yàq waaye luy génn yàqut ko sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam mbokk yi jërë ngeen jëf kon loolu moo doon hadis bi ñaanul Cheikh al imam Cheikh Ahmed Tidiane ibnu Seydi Ali Cissé si tekk gi ci wolof ci arab ñaanul Cheikh Cheikh Abdoulaye mu Cheikh Mouhamadoul Mahi Cheikh Ibrahima Niass rendez-vous incha allah suba ci talaata ji bu soobee yàlla jërë ngeen jëf ñu yendoog jàmm alhamdulillah alhamdulillah wahdahu wa salaamaani ala man la nabiya baadahu